إلهي يا متوالي ارحم حالي يا إلهي يا متكبر ارحم léegi loolu moo lay ضعفي wan ne la kon kii nekkul koo xamante ni li muy wax ni dafa ñëw di ko waxal boppam nga jàngataat ko tamit moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bi mu ñëwee ci ay melokaanam ak qualité yi nga xamante ni nekk na ci moom mu nekkoon nit koo xamante ni li nga xam ne kii àdduna taxu koo jóg tilka daaru l axiratu najcaluha lilladina laa yuriduna uluwan fi l ardi wala fasaadan wal aaqibatu lilmuttaqin laa yuriduna uluwan fi l ardi wala fasaadan ñëwul woon di sàkku yëkkati ko ci kaw suuf ñëwul woon di yàq ci kaw suuf du benn ci loolu lu ko taxoon a jóg yëkkati ko du nguur taxu ko woon jóg mosu koo ut lu ko yàlla jox mu jël ko joxaat ko doomu aadama yi néeg bi mu doon tëdd bu fa Aïcha radiallahu anha mosaan tëdd sax du am fu mu mën a teg boppam pour sujjóot alayhi salaatu wasalaam Omar mos na koo fekk mu tëdd ba basang bi marqué ci ci ci ci faar yi Omar di jooy naan ko nii ci anam bi nga nekk te xoolal buur yi confort bi ñu nekk mu ne ko maa lii wali dunya in ana wa dunya illa ka rajulin qaala taxta shajara thumma raaxa wa tarakaha ni ma mel ci àdduna mi ngi mel ne nit ku dem di xaylu la di noppalu ci suufu benn garab ba noppaloom jeexee mu jóg romb ko fa dem man noonu laa mel ci àdduna noonu la alayhi salaatu salaam meloon nekkoon ci ay jikko yoo xam jikko yu rafet la anas ibn malik nekkoon xale ba am fukki at nekk ci kër yonantu bi alayhi salaatu salaam nee na mës naa koo liggéeyal fukki at moom yonantu bi alayhi salaatu salaam mësumaa wax ne ma li nga def lu tax nga def ko li ma deful mu ne ma lu tax defuloo ko kan ci ñun moo mën loolu mu ne mësuma gis ku rafet jikko ba mel na yonantu bi alayhi salaatu salaam nee na bu nit ñi daan ma yedd ci kër ga sax danaan bàyyi leen jàmbur da'uhu insha allahu amran kaana loolu la leen daan wax bàyyi leen jàmbur bu yàlla nammee dara dina am bu yàlla namee dara dina am alayhi salaatu wasalaam yàlla joxoon ko qualité yoo xam ne ku ko mës a gis da nga koy bëgg naw ko benn benn bu araab yi mës na koo dab fekk saxaaba yi dañ daan toog ak moom bu jógee ñu koy xool ba mu dugg ci biir këram yi benn bés benn bis ñu gis ko mu jóg di dem ñu bàyyi ko muy dem bi mu demee ba sori benn waay kaw kaw yoo xamante ne jóge ci àll ba jàngul xamul xam-xam bi bariwul yar bi newu fi dog ko fekk mi ngi sol benn manto boo xamante ni bii maanaam baat bi dañ koo daami na dañ koo lu mel ne boroode moo ci nekk te moom yaramam dafa nooyoon waa ji ñëw rek jàpp ci cat cat bi rek daal di koy bif xëcc ko bi mu ko xëccee manto bi mu soloon dafa dafa tërgan dafa dafa dafa deretal ci ci baat bi bi mu wëlbati ko jàkkaarloog moom mu ne ko aatini min maalillahi alladi indak alal yàlla dina ci yow jox ma ci mu wëlbati ko jàkkaarloog moom di reetaan jàkkaarloog moom di reetaan daal dina nit ñi jox leen ko jox leen ko noonu la mero alayhi salatu wasalam xoolal ba waa ji ñëwee jàkka jàkka li ñuy jullee mu dem fa taxaw fee di gaanuwaay di tuur ndox di saw gars yi ay jóg ñuy fàq mu ne leen daawuhu bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur ñu bàyyi ko ba waa ji saw ba pare mu ne leen ut leen ndox ñu ut ndox mu ne leen sotti leen ko ci saw bi jàngal na leen ñoom yar na leen daal di woo waa ji ne ko suñu jàkka ji dey moom defu ko defuñu ko pour lu mel nii dañ koo def pour di fi tudd yàlla di fi jaamu yàlla di fi jàng alquran waaye defuñu ko pour lii waa ji bi muy dem bay war ci gëléemam daf ne allahuma arhamni wa muhammadan wala tarham maana ahadan yàlla nag ma yërëm mag muhammad bul fi yërëm kenn ci mbooloo mi ñun ñaar kese yërëm ñu ndax rafetul jikko muawiya ibn alxakam assulami bi mu ñëwee ci jàkka ji fekk ñuy julli mu daal di ñëw dugg kàbbar loolu bu njëkkoon nit da daan def bu ñëwee fekk ñuy julli mu ñëw wax ki mu dendal na ko ci ban rakkaa la ñam mu ne ko ñu ngi ci ñaareel bi mu daal di kàbbar dugg boobu wax kenn terewu ko ci julli ba yàlla wàcce wa qumu lillahi qaanitiin ci lañ tere di wax ci julli ci li nga xamante ne yàlla mi ngi ko jaarale woon ci anas muaad muaad ci muaad yaakaar naa muaad la tayib léegi muawiya nee na benn waay bi dend ak man daal di tissooli ma ne ko yarhamuka allah gars yi daal di commencé di tàpp di ma noppiloo mu ne nit ñenn ñi di ma catal di ma di ma catal ay bëtu kii lu muy def nii nee na ma gis catal yeeg ñii di ma xool ak ñii di kii ma ne leen lu ngeen may xullee waa sakk laa umma ya ma sha'nukum tanduruna ilayya lu ngeen may xullee lan laa def nee na dafa yuuxu ba fu baatam même ci biir jàkka ji nee na nit ñi di gën a dóor seen i pooj nag mu xam ne def na toj toj mu noppi léegi nee na bi mu noppee problème am mooy bu paree lu ko góor gi di wax lu ko kilifa gi di wax foofu la moom yedd yi lay xaar yedd yi ci biir mbooloo mi ak gàcce gi mu fi nar a jële moom moo ko jaaxal mais nee na bi yonentu bi alayhi salaam sëlmale nee na bi abi humma wa ummi maa raaytu mualliman ahsana minhu taaliman nee na jokkee naa ko sama ndey ak sama baay musuma gis ku gën a rafet jàngale yonentu bi alayhi salaatu wasalaam nee na maa kahara nii wala nahara nii gëdduma jàjjiw ma daf maa woone ma suñu julli bii dara ci waxi nit ñi waree su ko cee def dañ ciy tudd yàlla di ci màggal yàlla di ci jàng alquran nee na loolu la ma wax nee na bu ma waxee loolu nag sama xel daal di daal ma commencé di laaj naan ko ah man demoon naa fi sax ay laaj boo ma ci mënoon baaxee mën a ko acca mu commencé laajte maanaam comme jëflante na ak moom lu rafet mu commencé di laaj poser question bi mu amoon ñu leeralal ko mu daal di jug dem nit ñi bëggoon ko ci anam bu mel noonu mës na ànd ak saxaaba yi dem tukki biñ ñëwee nit ñi toog ci taatu garab yi di féexlu moom mu dem ba ci benn garab bu beru pour noppalu fa mu daal di lonk ko jaasi ji mu yoroon tëdd ci suuf xadis mi ngi saxiix Buxaari ak Muslim léegi ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy faral di jàppalanteel ci ñi dëkk kaw kaw yi dëkk ci àll bi am ci koo xam ne ndakate mi ngi leen doon espionné mu seen ne gis ne yonent bi alayhi salaam dafa beru ma nga ci benn garab toog fa nekk fa moom kese te kenn protégé wu ndax daawul nangu di ut ñu koy garder xëy na ci tàmbali bi amoon na mais bi yàlla wàccee ci moom wallahu yaasimuka min annaas daf ne yàlla moo may protégé dem leen seen yoon waa ji yoto yoto yot ba ñëw daal di rocci jaasi ji jël jaasi ji mu lonkoon daal di koy rocci daal di koy bocci ci kanamam daal di koy yee xam nga ku mel ne man boo ko yeewee tim ko ak jaasi moom du fa taxaw di la xaar looy looy laaj ak loo dul laaj yonent bi alayhi salaam yeewu daal di jàkkaarloog waa ji waa ji ne ko man yamnauka min min nii kan mooy dox sa diggante ak man maa ngi téye jaasi ji la xaar mu ne ko allah waa ji dafa tiit ba jaasi ji wadd ci loxo bi jaasi ji ne kalam ci suuf mu for ko ne ko man yem na wax ko mel nii léegi yow la kuy dox sama diggante ak yow waaj na ko axat mu ne ko demal mu ne ko demal waa ji ne ko ma dem mu ne ko demal waa ji mënut a comprendre moom lim def def ko nit ba noppi kooku baal ko saxaaba yi ñëw mu nettali leen xew-xew bi ni mu demee waa ji dem ci xeetam ne leen inni jitukum min xayri naas bi mu delloo dëkkam loolu la leen wax maa ngi jóge ci ki gën ci doomu aadama yi laa jóge pour ñëw ci yéen loolu la leen wax ci koo xam ne ba muy dem daf ko bëggoon attentat loolu attentat la moom la ko bëggoon def bi mu ñëwee ci xeetam daf ne leen inni jitukum min xayri naas kooku mooy Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam yàlla joxoon ko taaru jëmm joo xam ne saxaaba yi bu ñu ko mosaan gis albara ibn azib nee na bu yonente bi alayhi salaam mosaan sol mantoom bu xonq bi ba peñe karaw bi karaw bopp bi mu daaneel ko ci ginnaaw neen dañ koy xool di xool jant weer wi weer wi nekk ci guddik fukki fan ak juróom du ñu xam ñoom ñaar ko dàq nee na yonent bi alayhi moo dàq weer bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi nee nañ bu ñu musaana bu musaana romb ay nit topp ko nee na bu la réeree xamoo fu mu jaar xetam moo la yóbbu ba ci moom fi mu topp xetu yaramam ndax gëtt gi nga xamante ne moo daan xeeñ ci yaramam am na soxna soo xam ne daan xaar ba yonent bi alayhi salaam nelaw fi mu tëdd bu ñaqee muy ñëw di jël ñaq bi di ko def ci benn flacon pour di ko def ci gëttam ndax xet bu neex alayhi salaatu wasalaam moo tax soxna sa gisoon ko ca gàddaay ga ba mu ànd ak Abu Bakar nee na gis naa nit ku dal koo xamante ni buy wax wax ja topp toftaloowul taqaloo taqalikoowul trop buy wax boo koy xool gémmiñ gi dafay mel ne ay ay perle mooy wadd di jóge ci gémmiñ gi dafay mel ne daf lay hypnotiser ndax wax ju neex ak wax ju rafet ak jëmm joo xamante ne jëmm ju rafet la nee na gis naa nit ku dal nit ku rafet nit koo xamante ni ña mu àndal wekk nañ ko wegel boo xam ne buy wax ak ñoom sax dañu ñëw sëgg ci wetam kenn ci ñoom du yëkkati baatam ci teewaayam alayhi salaatu salaam yàlla joxoon ko lewet ba ne ba noppi tamit nekk ko amoon caractère dafa lewetoon fa bima rahmatin min allah linta lahum nekkoon ku lewet ba xale yu ndaw yi nekkoon ci madina da leen daan romb di leen nuyu anas nee na yonente bi alayhi daan romb xale yi naan leen asalaamualeykum fekk xale yi di ko mu leen di nuyu te moom mooy rasulullah alayhi salaatu wasalaam nee nañ Madina ku ko fa musaana soxla da nga koy fekk mu toog nga ne ko dama laa soxla mu jóg topp la ne la loo soxla benn xale yahut mës na koo invité ci benn ñeex moo xamante ni ñeex ma dafa forox ak benn daggu mburu yonent bi alayhi salaam ñu toog ak moom ci loolu toog ak moom ci jataay bi mel noonu am na xale bi yahut boo xamante ni da doon liggéeyee këram bi xale bi feebaree yonent bi alayhi salaam dafa dem seeti ji ko këram ñëw toog bi mu ñëwee toog ne ko na nga def xale bi ne ko maa ngi fi rek xale bu ko doon liggéeyal donc xale bi yëngu ko xam ne sax jullit xale bi di ko xool mën na ko aslim tuubal xale bi xool ko xool waajur waajur bi ne ko ati abal qasim defal li la abul qasim wax xale bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bi mu koy wax daf koy wax wax bi di génn yonente bi alayhi salaam bi mu génnee lan la def dafa génn taxaw ci buntu bi ne alhamdulilahi alladi anqadahu min annaari bi maa ngi sant yàlla mi ko musalee safara ci man mi ko musal ci safara ci sama sabab loolu la wax xoola jitte ju mel noonu mu joxoon doomu aadama yi xoola disponibilité bu mel noonu ak nu mu oyofee woon ci façon boobu anas nee na am na benn ndaw su nekkoon madina soo xamante ni xel mi matul woon dafa waye di woon nee na benn bis da ko fekk mu toog mu ne ko dama laa soxla nekku fa nit ñi di ko jaaj naan ko ay waay jugal fi waay nangam dafa jug ne ko yow ndeyu diw ak maa soxla mu ne ko waaw mu ne ko ah nañ dem xoolal fan nga bëgg ñu dem fa ñu dem loo soxla ma taxawu la ci nee na kooku ànd ak moom ba mu fajal ko ay soxlaa mu soog a dellusi waat toog ci mbooloo mi alayhi salaatu salaam disponibilité bu mel noonu la amoon oyof gu mel noonu la amoon moo tax mu nekkoon koo xamante nit ñi dañ koo bëggoon benn waaye mës na ñëw ci alal yi nga xamante ne yàlla da ko daan jox ak kaw kaw la di di laaj ci alal ji yonente bi alayhi salaam ne ko da nga soxla woon ci alal ji mu ne ko waaw mu ne ko gis nga gàtt yi nii mu ne ko waaw mu ne ko jëlal nga yóbbu waa ji ne ko mën nga wax de mu ne ko waaw yóbbul gàtt yi mu ko jox diggante ñaari xur la ba mu fees ak gàtt waa ji bi muy dem di dàq gàtt yi dafay daw ci xeex ma ngay daw jëm dëkkam naan leen tuub leen Muhammad dafay joxe joxe wu koo xam ne ragalul ñàkk tuub leen dem leen tuubi tuubi leen tuubi leen la doon wax dara daawul tegu ci loxoom danaan toog fi mu toog di joxe di joxe di joxe ba bu jógee yëlabu dara du ko toog tey dugg ci biir néegam naan Aïcha man de lu ma lekk laa bëggoon kooku ne ko dara amu fi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ànd ak loolu mu nekkoon nit koo xamante ne yàlla joxoon ko caractère boo xam ne kenn ëpp ko woon fit kenn ëpp ko woon jàmbaar mës naa juum dong juum ci julli taxaw ci jàkka ji kenn ci saxaaba yi ñemewul wax ak moom ndax caractère bu ko yàlla joxoon bu mu saan a toog nii noppi nii waxul amoo fitu di ko di ko di ko adressé parole maa nga gis ñaar yooyu mu boole woon loolu nekk lu jafe mooy caractère boo xam ne du ñàkk kersa waaye liwet boo xam ne du ñàkk fayda loolu la ko yàlla joxoon amoon ci jàmbaar loo xamante ni saxaaba yi nee nañ bu ñu mësaan nekk ci xare ki gën a ki jege yonente bi alayhi salaam ku ko gën a jege mooy ku gën a fit ci ñun ndax kenn gën a ko woon jàmbaar kenn gën a ko woon ñeme jege xare ci xeex xoolal ñu mu jànkonte xoolal keroog yow mu xonee ni bi nga xamante ne bi jàmmaam jàmpante nañu Taif ak la ko wër Hawazin ci Taif Hawazin ak li nga xamante ne ñoom lañu àndaloon bi mu tijjee Màkka gars yi pare na ñoom comme waa Màkka ñàkk nañ fayda ba dugg ci lislaam ñun léegi ñooy jël ñooy ñun ñooy jël kii bi relève bi ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy li jël ci mbir waa ji mu dem fekk ji leen waaye nag ñu ko toppoon ci ay al toppe yoo xam ne dañuy soog a dugg ci lislaam te lislaam bi dëgërul ci ñoom dafa bari ba ñuy dem sax am na ku naan al yawma lan nuxlaba min qilla tey de kenn du ñu gañe ndax suñu tuutiwaay yàlla ne wa yawma xunaynin ida ajabatkum kasratukum fa lam tuxni ankum shay'an wa daqat alaykum al ardu bima raxubat thumma wallaytum mudbirin maanaam seen bariwaay jëriñu leen woon dara yéemu woon ngeen ci waaye amul leen njëriñ ndax ndimbal du njëriñ du du bariwaay bi mais ndimbal ci yàlla la jóge moo tax yàlla waxoon ci malaaka yi mu wàcce woon sax ne wa ma jaalahu llahu illa bushra lakum wa li tatma inna bihi qulubukum wa li wa li tatma inna qulubukum bih wa ma nasru illa min indillahi al aziz al hakim ndimbal ci yàlla lay jóge yàlla même bu wàccee ay malaaka daf ciy dalalee seen xel rek waaye nekkul ne ndimbal ci ñoom lay jóge keroog bi ñu demee foofu noonu jaamaarloo mbooloo mi li muy bari bari bi ñu commencé xeex bi métti gars yi dañoo daw moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ci njàmbaaram ak la fekk mu nekk leader boo xamante ni situation du jafe-jafe ba déstabiliser ko moom moo fa taxaw di woote naan diw di woo ñi nga xam ne xam na ci ñoom jàmbaar xëy na mbooloo mi moo leen yóbbaale wala yooyu muy woo ñi nga xam ne mën na xëy na placé ci ñoom confiance am di yuuxu di woote di woote nit ñi di ñëwaat kenn par kenn kenn par kenn mu fexe ba récupérer waat situation bi ba renverser waat situation bi jëlee fa ndam noonu la nekkee woon leader alayhi salaatu wasalaam noonu la nekkee woon tamit visionnaire bu daan génn Madina di takk daf doon tromper ay noonam bu fekkente ni fi mu war a dem xeexi ji ci ci ci ci ci sowu la buy génn penku lay jël kaana ida araada an yaxzuwa warra bi gayriha bu musaan génn bëgg a dem ci benn xaswa dafay wane lu bokk la ko day def diversion lay def stratégie la woon alayhi salaatu wasalaam beneen bi ci des mooy xool ko nu mu doon jëriñoo nu mu doon dégloo li ko yàlla subhanahu taala wax ne faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l amr li ki muy nekk nekk yonent yëpp xoolal nu mu respecté woon ñi mu nekkal ba lu mu doon def daf ci doon jël seen xalaat yàlla mënoon na ko jox lépp lu mu soxla ci xam-xam ba du soxlaal kenn dara mais loolu baaxul parce que boobaa nit ñi duñ gis seen bopp ci li muy def mais bu daan def daan wax naan ashiru alayya ashiru alayya ba keroog yowmal xandaq bi ñu leen encercler ca Madina mu laajte stratégie ban lañ mën a def ba génn ci Salmaanul Farisi yaakaar naa xam nga Abu Dhar al-Ghifari kanat la ci ñoom ñaar yaakaar naa Salman la. moo ko xelal ne ko nañu tab nañu gas benn pax boo xam dafay wër Madina ci côté bi nga xamante ni moo gën a ubbeeku côté bi nga xam dafa tëju garaawul mais côté bi ubbeeku ñu protéger ko ak ak pax bi ba nga xam ne kenn du ko mën a jéggi mu daan di jël xalaat boobu exécuté ko bu ñu ko exécuté toogul ca tànt ba naan nit ñi góor góorgóorlu leen ci gas bi dafa nekk di gas ak ñoom keroog am na benn xeer boo xam ne dañoo gas ba àgg ci xeer bi kenn mënu koo toj yonent bi alayhi salaam moom moo jël pikk bi ñëw bi mu ko dóoree xeer bi dafa tas dafa mokk comme dóom mu ne ferñeent yi xeer bi def fu mu jëm ci àdduna yàlla wan na ma ne sama sama xeet seen mbir dinañ fa dina fa àgg Xudayma la benn Xudayma benn xeer roche bu mag boo xam ne keroog daf leen a maanaam aradat lahum yowmal xandaq kenn mënu koo toj yonent bi alayhi salaam moom moo ñëw toj ko maanaam noonu la nekkee woon modèle loolu moo tax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana loolu moo tax mu mën a nekk royuwaay bu doon yu mel noonu day toog fële naan waa duñu xool nuñ ko nu ngeen ko lijjantee xool leen nu ngeen koy nu ngeen ko def rek ba toj ko bu ngeen ko mënul ngeen ngeen war roor ko mais déedéet dafa dégg ñu naan xeer bi xeer bi xeer bi mu jóg ñëw ne ana xeer bi jox leen ma ko keroog nekk nañ ci situation bu metti boo xamante ni même ndox dañu amoon problème ndox mu laajte benn boolu ndox ñu jox ko ko mu jël loxo bi dugal ko ci ndox mi di ball ci suufu loxo yi nit ñi di ci tànk di naan di wëgg seen i gàtt ba man di ñoom ñépp te ndox mi jeexul mais man malgré loolu yëpp yàlla da koy bàyyi mu jànkonteeg jafe-jafe ak ay coono ndax li yàlla waxoon walaw yashaa allahu lan tasara minhum walakin li yu li yabluwa baadakum bi baad yàlla bu ko neexoon benn noonu du ko mënal benn dara kenn du ko sonal mais nag am na natt bu yàlla namm ci bàyyi bi muy bàyyi moom yonent bi moom saxaaba yi ñu nekk ci ay jafe-jafe di jànkonteeg seen i noonu ndax loolu natt bi dacaa nekk boo xam ne yàlla da ciy feeñalee lu bari moo tax yàlla bàyyi ko ci nite gi bàyyi ko ci niveau boobu keroog xiif nañ sonn dem na ba seen provision yi dencoon di ko lekk jeex na ñu sonn ay fan saxaaba yi di gas gas bu méttee métti ndax pax bi dafa yaatu woon nee nañ sax fas mënu ko woon tëb ndax ndax ndax ndax yaatu mu yaatu ba pare xóot nga bëgg koo gas ci périmètre boo xamante ni distance boo xam bu gudd la mu ànd ak ñoom di gas kenn saxaaba yi nee na xiif naa bu mënatumaa taxaw dama jël xeer takk ko sama biir pour mu dëgëral ma pour bu ma ngelaw li uppee ma bañ a daanu ndax xeer bi dëgëral ma nee na bi ma demee ba sonn dama ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ko wan sama benn xeer mu yëkkati biiram wan ma ñaari xeer yu mu takk loolu moo tax bu yàlla di wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir wa dakara allaha kathiran daf ne walamma raa al muminuna al ahzaba qaalu hada ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu wa ma zaadahum illa imanan wa taslima Cheikh Abdurahman Saadi nee na foofu yàlla nee na modèle la ci yéen waaye rawatina ci taxawaayu keroog boobu ndax na mu fa taxawee war ngeen ko cee roy bu ngeen bu ngeen amoon benn jom bu ngeen ko gisee war na tax ngeen am fukki jom ndax loolu da lay encouragé nga gis sa leader bi nga xam ne mooy sa royuwaay loo jànkonteel ci ay problème mu jànkonteeg lu ko ëpp te noonu la nekkee woon ak saxaaba yi alayhi salaatu wassalaam kon boo dee jàng kooku jëmm jooju jàng mbiram di nga xam ne kii maanaam nekkul ku ñuy sax mën a comparer ak nit ñi simple nii ba pare xool li mu réalisé ci 23 ans jël na ay nit yar leen ba seen diine jaral leen ñu ñàkk seen bakkan loolu problème la boo xamante ne loolu nekkul nekkul lu yomb benn waaye dafa dem ci benn université Londres di fa wax ci Muhammad ak nu mu nekkee modèle gars yi commencé di susauté ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir salle bi di wax ci suuf di kii mu ne leen lenn rek laa leen di wax mooy kan ci yéen ñi toog fii la diineem jaral mu jaay bakkanam na yëkkati loxoom mu ne leen Muhammad mi ngi plus de 2 milliards yoo kenn ku nekk sa diine jaral na la nga rey sa bopp. te ñoom ñëpp ci moom lañ ko jëlee maanaam préparé ay nit ba seen diine jaral leen ñu ñàkk seen bakkan moom protéger ko ak diine ji mu yor jaral leen ñu tuur seen bakkan dañuy faatu sax di di kontaan di reetaan alhamdulilah am naa shahada am naa shahada loolu fekk ab ceddo bu daan jaayu xërëm nga jar ko ba loolu nekk ci moom loolu nga yaakaar lu yomb la loolu la yonent bi alayhi salaam def ci diir bu gàtt ànd ak ñooñu dem Madina tabaxal tabax fa état islamique boo xam ne bi mu koy tabax yàlla ci coobeeram dafa fekk ne dëkk boobu ay juif ñi ngi fa ay yahut ñi ngi fa ak seen i pexe ak seen jubadi mu ñëw au début jàmm sante ak ñoom séq ak ñoom jàmm woo leen ci jàmm waxtaan ak ñoom ñu ne fa di ko fexeel di ko fexeel guddi di ko fexeel bëccëg yàlla def mu maîtriser leen maîtriser seenu ay sori leen madina defar madina def ko dëkk boo xamante ne dëkku lislaam la laata mu fay dem sax yabal na ay góor yàlla ku mel ne Musab Musab ibn Umayr ñooñu dem fa kër gu am ca këru madina yi dugal nañ fa lislaam laata yonent bi alayhi salaam di di di gàddaay stratégie bu doy waar boo xamante ni gàddaay gi rek boo ko jàngee di nga xam ne yonent bi alayhi salaam du nit du nit koo xamante ni nit nii rek la koo xam ne dafa doon ñëw rek di wax ay waxi boppam ak bëgg-bëggu boppam mais ni mu def ba dajeeg waa Yasrib woo leen ci lislaam convaincre leen ci lislaam ndax ñoom déggoon nañ yahudi di wax ne am na yonent bi ñëw ci mujjub jamono biñ déggee muy wax ñu ne kii la yahudi doon wax seeni wax walamma jaahum kitaabu min indi illahi musaddiqan lima maahum wa kaanu min qablu yastaftixuuna ala alladina kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bi wa kaanu min qablu yastaftixuuna ala alladina kafaru am na ñaari tafsir moo ne yahud yi dañ daan dëkku di tëkku ñiñ dëkkaloon ci madina te duñ ay jud duñ ay yahud naan leen suñu yonent bi ñëw ci mujj jamono bis bu ñëwee madina di ngeen ñu ko abal yasrib di ngeen ñu ko abal ndax dinañ ànd ak ñoom dinañ ànd ak moom duma leen rey leen ngeen jóge fi loolu lañ leen am na ab yonent bu war a ñëw ci mujj jamono di leen wax ci ay mbiram ba ñooñu dégg ko dégg dégg ko dégg ko ba bis bu ñu déggee ci moom muy woote ci lislaam ñu ne kii la yahudi doon wax bu mu ñu rek ci bu ñu ci kenn njëkk bu ñu ci kenn jiitu yàlla def ñooñu tuub dugg ci lislaam dellu seen dëkk nëbb ko ci beneen ma ci des ñu ñëw mbooloo ma gën a yokk bi ñu delloo dañ ko wax ne ko na nga ñëw fi nga xamante ne fi lañ dëkk ñu ñu protéger la waaye tëbul tëb dem dafa yabal lenn ci ay gaawam yoo xam ne préparé mooy préparation bi ma doon wax sànq préparé na leen ba pare ñooñu dem defal ko daawa Mus'ab ibn Umayr min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila mooy lenn li saxaaba yi waxoon ne am na si ñun ñoo xam ne liggéey nañ te fekkewuñ seen fay bokk na si ñoom Mus'ab ibn Umayr keroog bi ñu ko reyee ci Uhud benn malaan bi mu taraxlaayoo moo ko topp ci àdduna benn dërëm bàyyi ko ci ginnaaw benn malaan bi mu taraxlaayoo Mus'ab ibn Umayr yonente bi alayhi salaam ñu mel noonu la formé bi mu faatoo ñu koy sàng ak malaan bi malaan bi mënu koo sax matale bu ñu muuree bopp bi tànk yi feeñ bu ñu muuree tànk yi bopp bi feeñ yonente bi alayhi salaam ne muur leen tànk yi muur leen bopp bi te tànk yi ngeen jël ñax muuree ko loolu la yóbbaale fekkewul lenn ci yoonam te li mu liggéey lislaam yonente bi alayhi salaam ànd ak Abu Bakar fexe ba dem Madina ci anam boo xamante ne boo ko jàngatee lépp da nga yéemu ci yàlla ci doxal ni mu doxalee ak stratégie bi mu jaar ba génn màkka ba réer waa màkka ba dem Madina boo ko jàngatee li ci nekk ci ay stratégie ba léegi nii ci wàllu guerre ak wàllu xeex da nga koy mën a jëriñoo ni yonente bi alayhi salaam def ba génn màkka dem Madina bi mu demee Madina installé foofu li mu njëkk a def mooy tabax centre am boobu di jàkka ji moom la njëkk a def ñaari yetim ñoo ko moomoon mu jënd ko ci moo ñoom mu tabax ko def ko jàkka jàkkaam jooju noonu fa la tàmbalee daawam pour tasaare ko ci àdduna bi yëpp alayhi salaatu wasalaam taxawal foofu état islamique bu dëgër boo xamante ni état boobu defuñu lu dul ay at mu am ndam ci bépp noonam boo xamante ni bi yaa ngi ko doon menacé ba commencé sax di yóotu ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo yor empire yu mag yi muy romain yi bi nga xamante ni keroog jox na ay ay ay ay général ay généraux yoo xamante ni ci jàmbaari saxaaba yi lañ Abdallah ibn Rawaha Zayd ibn al-Haritha ak kanati Hamza ibn Abdul Muttalib mu jiital leen ci mbooloo yabal leen ci romain yi ne bu diw daanoo na ko diw jël bu diw daanoo na diw jël bu diw daanoo na diw jël bi ñu demee foofu xare fa ñoom ñett ñëpp ñu daanu Xaalid ibn Walid jël ko def repli stratégique ba génn ci jullit ñi bi ñu ñëwee nit ñi naan leen da ngeen a daw da ngeen a daw daf na leen dawoo leen di ngeen dellu te yàlla def na ñu delluwaat ba am ndam salawatullahi wa salaamuhu alayhi yàlla subhanahu wa taala la waxoon ne jox na ko du mu ne woon utaytu alkanzayni al ahmar wal abyad yàlla jox na ma ñaari trésor yi trésor bu xonq ba ak trésor bu weex ba trésor bu xonq bi mooy bu perse yi trésor bu weex bi mooy bu romain yi mu junj si ne ñaari nguur yooyu ñaari empire yooyu dina daanoo sama loxo te noonu la amee salawatullahi wasalam koo xamante ne bi gis-gis bu mel noonu la am bàyyi fi diine joo xamante ni diine joo xam mission universelle la boo xamante ni lu àdduna di gën di dem muy gën a am doole noonu yi bi ñu demee ba jaaxle xamuñu diine ji lu tax nit ñi di ci dugg ñu ne diine ji day forcer nit ñi ñu ciy dugg fàtte li mu waxoon ne laa ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayy musul forcer nit ñi pour ñu dugg ci diineem diine ji jamono ju jàmm gën a bëri ci lay gën a am doole jamono ju jàmm gën a bëri ci lay gën a tas ci biir nit ñi ci lay gën a am doole ka sax jamono joo xam ne jamono fitna la yonente bi alayhi salatu wasalaam boo xoolee moyens yi mu jëfandikoo ba am réussite bu mel noonu mu am da nga yéemu ci yàlla mbooloo mi ko toppoon mbooloo mu tuuti lañu mën nga wax ne ñu ngi ñi mu li mu gën a mobiliser ci mbooloo ci ay taxawaay ci loo xamante ne xeex lañ koy tuddee mooy keroog fatxu Màkka ay mën nga wax fukki junni ci jamono yi nga xamante ne ay jamono yu sori dëgg la te loolu ñu ci bëri ay wàcc bees la ñoo ñoo xam ne dañoo àndandoo ci mbooloo mi rek mais soldats yi dañuy tuddee ay soldats dëgg nekkoon ci wetam day saxaaba bu ñu matee téeméer juróomi téeméer ci lañ jam juróomi téeméer ndax ay ñetti téeméer la ñu woon ak lu teg ci ñi nga xamante ne dëgg dëgg dëgg ñoom la formé ñu nekkoon ci wetam jego ba tax na kon da ngay gis ne lan lan yan moyen la amoon yu tax li mu réaliser mu réaliser ko alayhi salatu wasalaam ci diir bi nga xamante ni ci la ko réaliser yan moyen la jëfandikoo musul xeex xeex boo xamante ni li ci dee ci ay nit mat na ñaar téeméeri doomu aadama man li ma gis ci li dee ci ay nit ci li ëpp ci xeexam mooy Uhud 70 fii 70 fële bu dee Badr 70 lañ rey ci ci ci yéefar yi jàpp ci ñoom 70 awalam ma asabatkum musibatun qad asabatum mithlayha parce que bi ñu reyee juróom 70 muy juróom-ñaar fukk ci ñoom ci jullit ñi keroog Uhud ñuy jàmbat loolu naka la mën a amee yàlla ne yéen mës ngeen a am ci ci ci ci yéefar yi loo xamante ni duubul bi la qad asabtum mithlayha mooy da ngeen a rayoon juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk léegi bu fekkente ni 70 ak 70 muy 140 ci xeex yi nga xamante ni def na ko te xeex yu nekk gis nga la ci nekk ak la nekk ci ginnaaw ci ay résultat ak la ca nekk ci maanute ak la ca nekk ci fonk doomu aadama ak dem ba waxuma la sax digal ñi muy yabal ne leen bu leen rey ku ngeen warta rey nee na leen jigéen bu toog bu leen rey bu leen rey mag moo xam ne xeexul ku yoonam nekkul bu leen rey ku ku ku beru ci bërëb ba muy jaamoo yàlla bàyyi leen na ngeen génn dem xeexe ji ci yoonu yàlla dimbali koo yàlla garab goo xam ne sax dafa am ay meññeent bu leen ko dagg mës naa ànd ak saxaaba yi gis kenn ku taal ay xorondom ay melentaan mu ne leen kan moo def lii kenn warta mbugalee safara ku dul borom safara kooku vraiment leader la woon général la woon nga gis loolu yëpp nga xamante ne def na ko ànd ak loolu moo nekkat imaam bi jiite ci jàkka ji moo nekkat tamit jàngalekat bi nga xam ne mooy enseigner mooy leeral masaa'il yi mooy ubbee mooy fatwa mooy jàngale mooy yar mooy jubbanti moo nekkat tamit père de famille modèle bi nga xam ne bu demee këram moo fay nekk di foofu njabootam ak di leen jàppale ci seen liggéeyu kër moo nekkat taxawkat bi jaamu yàlla guddi saxaaba yi toog fee ci ci ci seen i suufu suufu suufu garab di nelaw dégg ko mu toog ci suufu benn ja garab di jaamu yàlla di jàng alquran di jooy ba ali ibn abi talib nee na wali sadrihi azizun ka azizi raha wali sadrihi azizun ka azizi mirjal nee na mës nañoo dem ci benn tukki guddi ñu tas sonn ñun ñëpp a nga tëdd di nelaw amul kenn su ñun ku jug ku dul yonente bi alayhi salatu wasalam maa ngi ko seen ca benn suufu garab ma ngay julli di jàng dënn baa ngay riir comme boo tegee cin ni cin li di riiree ndax jooy maanaam àggoon foofu ci jaamu yàlla boo ko nattee ci benn qualité bu nekk da ngay gis ne fa mu ci àgg da ngay jaaxle léegi qualité yooyu mu boole woon nekk stratège nekk général buy jiite ay xeex nekk président mu ko waxoon président lay xaw ma imam boo xam dafa jiite état di àtte di lijjanti di jubbanti nekk imam biy jiite ci jàkka ji nekk imam bi taxaw ci minbar bi di xutba nekk kii mayee sëy yi di jullee néew yi nekk ki nga xamante ne bi mooy yar di jàngale professeur bi nga xamante ne ci moom la ñuy ñëw mooy ubbee mooy mufti bi maanaam lépp moom la moom ci boppam lépp moom la alayhi salaatu wasalaam xoolal qualité yooyu yëpp mu dajale woon nga xam ne tey boo dajale woon benn benn bureau bu mat boo xam ne da nga fa dajale ay nit sax ñu nekk pôle ku nekk spécialisé wu ci dara mënuñu koo taxawee moom loolu yëpp mu rassemblé ko boole ko alayhi salaatu wasalaam moo lay wan ne la kii mbiram nekkul mbir boo xam ne bu oyof la li mu dajale woon ci ay qualité alayhi salaatu wasalaam ci ci ci ci côté yooyu noonu bu fekkee xool nga ko léegi kon bu fekkente ne xool nañ ci moyens yi nga xamante ni jëfandikoo woon na ko moom alayhi salaatu wasalaam da ngay gis ne nekkul lu mën a tuddee violence tey ñiy wax ne l'islam dafa am violence di tuumaal l'islam violence ñoom ñooy xeex xeex yoo xamante ni dañ ci dañ ciy éradiquer ay doomu aadama ndax ñoom ñoo defar ay arme yoo xamante ni arme de destruction massive la di rey ay junni ay millions yi doomu aadama ci xeex yoo xam ne tekkiwul dara xeex yoo xamante ni du sax njariñu du sax pour njariñu nit ñi say intérêt bopp la ay problème stratégie la ay problème yu kenn ay calcul la yu kenn xamul ci àdduna bi dañuy dem di envahir ay dëkk di fa dóor ay missile di fa taal ay armes yoo xamante ni liñ ciy rey ci ay doomu aadama te seen yoon nekku ci kenn xamul nu mu toll yonente bi alayhi salaam daawul dugg yonente bi alayhi salaam daawul dugg ci dëkk ak ay soldaaram di rey danaan jàkk jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne bi ñoom la amal affaire ñoom la war a jaamaar loolu ndax amoon na fulla ju toll ne amoon na ay soldaaram ndax loolu tamit day wane matam parce que boo ne woon religion la boo xam dafa ñëw ne boo ma mbéjee fi ma jox la lex bi kon du fi sax ba heure bi ndax law walaw laa def allahi naasa baadahum bi baadin la fasadati l ard doomu aadama yi foog yàlla ñenn ñi seen ndëngate mu jël ñeneen teg leen seen kanam ñu ne leen lii du ngeen ko fi defee bu ful la ju mel noonu amul kaw suuf day yàqu mooy suuf foog mu am autorité diine ji nga xamante ni moom la indi mu war a jubbanti kaw suuf war a jiite kaw suuf bu àndul ak régime boo xamante ni na am autorité ci biir bu mën a protéger diine jooju kon loolu du fi mën a sax ci kaw suuf moo tax mu jihaad loolu moo tax mu xeex loolu moo tax yàlla xeexloo ko kon xeex bi bi mu xeex nekkul ñàkk jàmm aay yi ngay fekk ci alxuraan muy wax ci xeex li mu nekk mooy am fulla ak am jàmbaar ku toll ne koo xamante ni bi diine yàlla ji neexu la ci mbokk seytaane yi nga xamante ni dañoo bëgg a gàllankoor nit ñi ba duñ topp li yàlla bëgg la boo ñëwee ñu ne la yemal sa place bu ko defee nga xam fi ngay yem ci lislaam moo tax lislaam neexul neexul yàpp ndax bu ci loolu nekkul woon nit ñi dañ koy yàpp coow li coow li ba léegi jullit yi même amuñu sax état ba léegi noonu ñemewuñ leen dañ leen ragal ndax li yonente bi alayhi salaam waxoon ne wa nusirtu bi ru'bi masirata shahr loolu ba léegi mi ngi ci qualité boobu ba léegi mi ngi ci jullit ñi xëy na fa mu àggoon bu njëkkoon àggu fa ba léegi nii waaye ba léegi ragal gi mi ngi fi bu ñu gisee jullit dañuy mel ne ku tiit surtout bu ñu gisee jullit boo xam ni mel na li lislaam bëgg mu mel ko dafay mel ne dañuy tiit ñemewuñu jullit loolu noonu ci li li li li protéger l'islam bokk na ci moo tax boo gisee kër kër jéeg tuumaal beeg li ñuy tuumaal jullit jéeg di leen jéem a faagagal yépp parce que seen bariwaay dañ koo ragal ci àdduna bi ndax jullit ñi dañ leen di tiital lu ñu gën a bari di gën a jàpp ci seen diine di gën a nekk problème ci ñi nga xam ne ñoo bëgg a instauré ci àdduna bi nouvel ordre mondial instauré fi système boo xam ne système seytaane la yonente bi alayhi salaam kon nekkaat général boo xamante ne dafa dafa xeex mais xeex yi mu xeex xool ko jàngat ko xeex yooyu bu njëkkoon dafa noobuloon xeexu jàmbaar la woon xeexu góor la woon ndax dañ daan génn daje jaamaarloo góor ak góor balaa sax ñuy jaamaarloo léeg-léeg ci mbooloo mi nit day génn fële nit génn fële ñoom ñaar ñu xool kan mooy kan mooy kan mooy daan sa morom kan moo mën loolu yëfi jàmbaar la yëfi fit la woon te bu ñu mësaan a xeex ba tàqalikoo foofu ku nekk da ngay bàyyi sa morom mu dellu mais léegi xoolal geeru léegi dañuy ñëw envahir la fekk la sa dëkk massacrer la yàgg sa population détruire sa dëkk lépp détruire infrastructure yi dóor la ay bomb yoo xamante ni effet toxique yi muy bàyyi sa réew daf après de ay année ay année dafay jeexital ci nit ñi ak ci suuf si ba pare bu ñu paree soldats yi wàcc ci suuf ginnaaw bu ñu la bombardé ba pare soldats yi bu ñu ñëwee dugg ci biir kër yi yàqate jël jigéen ñi def leen lu leen neex jàpp góor ñu yóbbu ci prison yi tëj torturer def lu leen neex ñaawteef bu nañu def ko ba pare nag nangu say bien yóbbu bu dee sa wàllu politique ñu jël seen benn pion teg ko fa muy def lu leen neex léegi guerre noonu la mel léegi ba pare ñooñu nee na ñoom ñooy ñuy wote jàmm ñoom ñooy nit ñu moderne ñi ñoom ñooy ñuy wax ci démocratie ñoom ñooy wax liberté doomu aadama te seen guerre noonu la mel ci àdduna bi léegi te léeg-léeg dëkk bañ koy def sax jotewul ak ñoom dara tooñu leen sequl ak ñoom rien du tout exemple bu ma leen ciy jox Irak exemple bu ma leen ciy jox Libye problème interne boo xam ne ci biir Libye la xewee nga manipuler ko utiliser ko fexe ba dem dëkk ba taal dëkk ba tasaare population ba yàq la fa nekkoon ci njariñ jël jël président bi rey ko comme ni ñuy reyee bàyyi ma ci mbedd mi xoolal ñaawteef bu mel noonu nga ne démocratie ci turu démocratie ngay defee loolu ci turu liberté ngay defee loolu ba pare dina rafet ci nit ñi parce que lu ñu mën a def ci ñaawteef seen médias yi rafetal ko parce que dañ koy dañ koy justifier dañu wane ne violence la boo xam dañ ko justifier ndax objectif yi baax na Irak lan lañ def tuumal Saddam Hussein ne dafa yor ay armes de destruction massive ONU yóbbu foofu seen agence bi nga xamante ni mooy lijjanti wàllu armement yooyu ñu dem fa xool ki ko jiite woon yaakaar na c'est un suédois suédois Hans Blix la tuddoon kooku noonu waa jooju dafa nekkoon nit ku dëggu même du jullit mais dafa dëggu woon moo tax après nee nañ sax da ciy jël ay problème parce que loolu da koo metti metti boo xam ni le fait que mu dem foofu def lu muy def ba joxe ay résultats am américain yi ne kooku loo dëgg loolu da koo metti waa ji léegi dafa retiré wu complètement mi ngi ci benn village ci dëkkam fa la dem toog nangootul dugg ci dara ci fu àdduna bi nit ñi waxatuñu ay waxam mais moom nee na moom loolu ci lu ko gën a metti ci àddunaam la bokk parce que waa ji dafa honnête ñi ko xam mësa liggéey ak moom yépp nee na ñi ko xam ci honnêteté waa ji dem fa gëstu xool lu mu xam mu def ko nee na gisatul ay armes yu tax ñuy wax Saddam Hussein yoratul lenn luy menacé peewu àdduna bi dañ fa fekkoon a kës ñëw détruire nañ ko kon nañ bàyyi jàmbur ak jàmmam George Bush ne déedéet du ci dal foog mu lijjanti ko yor na ko te man bu ko ONU lijjantiwul man dinaa dem lijjanti ko léegi yow ban maqaama nga am yore sa réew nit yor réewam nga ne ko yor nga arme yow warta yor man dinaa ñëw duma la nangu ko ci yow te arme yooyu nga koy wax ne yor na ko yow yaa ngi ci yorul dul jeex mais ci ban àdduna la ñuy dund nañ waxante dëgg ci ban àdduna lañ nekk benn peuple benn dëkk ñëw ne man maay dem ci dëkku jàmbur président ba yor na arme boo xam ne man yor naa ko naam waaye moom yoru koo yor parce que man démocrate la moom dictateur la bu ko yoree da ci rey nit ñi man du ma ci rey nit ñi te yow yaa dem dóor ko japonais yi rey ci ay milliers de personnes est-ce que ba nga ko dóoree ci japonais yi nit ñi dañ ne la waratoo yor arme nucléaire da nga ne dóor bi nga ko dóor ci ñoom dëgg la yoon la parce que da nga doon xeex ak ñoom te japonais yi mosuñoo bombardé États-Unis li nga xamul benn missile mosul jóge Japon daanu biir États-Unis lan moo tax américains yi dóor leen ñaari bomb yi ba léegi nit ñi war nañ posé wu question boobu lan moo tax dañ ne Pearl Harbor seen benn base navale bu ñu yoroon seen benn bateau dañ ne bateau japonais yi dañ ko dañ ñëw kii leen bombardé leen bi ñu leen bombardé nee nañ dañuy fayu ñoom parce que japonais yi ñoo leen tooñ léegi loolu moo leen dugal ci guerre bi il fallait que ñu dugg ci guerre bi bi ñu ci duggee commencé songu japonais yi dem ndakate gars yi dañoo préparé wu ba ñu def lu ñu xam mënuñu fexe ba agsi ci seen ci seen ci seen île yi rek balaa sax ñu dugg biir Japon affaire bi metti ci ñoom dëgër ci ñoom ñuy ragal échec ñuy ragal échec am ci ñoom boo xamante ni dafay wàññi seen puissance ak xëy na lu ñu bëggoon ñu ne léegi noo xaaral foog ñu dem lijjanti ko ci beneen façon ci lañ dóor ci ñoom ñaari bomb yi mais bu fekkoon japonais yi dañoo ñëw ba États-Unis di fa dóor ay bomb di leen rey rey seeni population ñu ne kon bu ñu dóoree ñaari bomb nucléaires yi Hiroshima ak Nago- Nagasaki ñu ne kon léegi loolu xëy na fayu la mais benn balu pistolet japonais yi mosuñu koo tiré ci ci mbeddu Amérique yi ñu def ñaawteef bu toll noonu ci àdduna bi nit ñi nga xamante ne bi ñoom la ñoom ñoo fekkee mbir moom nee nañ doomu aadama yi seen der yi da doon summeeku comme yére sa yére nu muy summeekoo noonu la seen der yi doon summeekoo ndax ni leen ni leen ni leen waxuma sax bomb bi lakk la mais kii bi ngelaw li ngelaw li maanaam ngelaw li bu la bu la bu la uppee sa der dafay summeeku rocceeku ci sa yaram nga dese yàpp kase deret der bi wadd ci suuf ñaawteef bu mel noonu ku ko mën a def ba pare wëlbatikuwaat ñëw taxaw ak sa costume ak sa cravate di wax nit ñi naan man maay démocrate bi man maa yor liberté ci àdduna bi di tuumaal ñeneen ñi ne ñoom ñooy terroriste yi ñoom ñooy ñu soxor ñu ñu rey ana ñan lañ rey kan moo fi mës a def ñaawteef bu mel noonu kan kenn mësu ko def fii lislaam mësul def loolu lislaam xamul loolu lislaam mësul xeex xeex bu mel noonu yonent bi alayhi salaatu salaam moo indi jàmm ci kaw suuf bi mu toogee ak ay noonam ñuy def ay négociation luñ ko laaj ci jàmm mu nangu ko dem na ba saxaaba yi sax mëntuñu woon supporter li muy li mu nangu lépp lu ñu wax mu ne leen baax na nangu naa ko ndax na jàmm am rek na jàmm am wa in janaxu li salmi fajnax fajnax laha wa tawakkal ala allah buñ ñëwee woo la ci jàmmoo nangul jàmmoo ga te nga dimbali koo yàlla loolu la ko yàlla subhaanahu wa taala wax léegi loolu yépp dañ delloo si waat ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy doomu aadama bi nga xam ne moo sauvé humanité bi te ñi maandu ci ñoom ci seen orientaliste yi nga xam ni jàng nañ personnage yu yonent bi alayhi salaam te maandu jàng diineem bu baax a baax jàng li mu def ci nit ñi ba tax nit ñi di ko topp gëm ko di julli ci moom suba ak ngoon bu ñuy wax ci ñoom seen seen seen seen xol yëngatu seen xol fees li tax yàlla may ko loolu loolu lu rëy la nekkul benn kaw kaw benn bédouin bu nekkoon fële ci àll ba xëy xëy benn jour rek autoproclamé wu yonent di wax ay waxam yore ay soldaaram di rey nit ñi naan leen dugg leen ci lislaam wala ma rey leen li mu am loolu mayu ko ko loolu nag lañ gëmloo population occidentale bi ci seen média yi nga xam ne ay média de propagande la mais l'islam de loolu Muhammad alayhi salaatu salaam mooy mujjantalu yonent yàlla jox ko ay capacité yoo xamante ni benn yonent amu ko ci lu ko jiitu jox ko diine joo xam ne mat na mataay boo xamante ni diine mu munul mel munul mel comme diine bi ko yàlla jox yàlla jox ko benn aaya ñu ko tuddee miracle xëy na boo xamante ni yonent musul am miracle bu mel noonu wa qaalu law laa unzila alayhi ayatu min rabbi qul innama al ayatu inda allahi wa innama ana nadiru mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim awalam yakfihim la yàlla wax anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim bi ñuy wax naan mool lu tere yàlla jox ko ay firnde comme ni mu ko joxe woon Moussa ca bant ba Isa di dekkal ay nit yàlla ne nee leen firnde yooyu ngeen di laaj nekkul sama loxo ci yàlla lay jóge man yonent yàlla laa rek bu yàlla yebal waaye nag war na leen a doy téere bi ma yàlla jox bu ngeen dee seet firnde ndax ñooñu seeni miracle dégg rek ngeen ci am gisoo leen ci lenn lii nag keroog ba keroog aaxiru zaman yàlla dina ko fi bàyyi mu ne fi nit ñi di ko gis xam ne lii yàlla moo ko wàcce woon ci Muhammad ibn Abdillah muy waxi yàlla joo xam ne dara raxu ko te wax jooju la yàlla wax ne bu nit ñi ak jinne yi dajale woon seeni xalaat ak seen xam-xam pour def lu ni mel duñ ko mën te ba tey jii nii défi boobu mi ngi fi te kenn relevé wu ba tey ñi ngi ci ci ci siècle technologie ñi ngi ci siècle li ñu tuddee intelligence artificielle ñi ngi wax ci ay voiture autonome di wax ci ay robot di wax ci ay dem dem Mars dëkk ji foofu lu ne ñu koy wax alxuraan ak fi naan leen kenn mënut a def lu mel nii gars yi kenn mënut a def lu mel nii ana technologie beeg science bi lan moo tax jéemuñu def loolu jullit ñi fi nekk naan leen suñu téere bi lu lu lu mel mënoo leen ko yéen a ngi fi dinaaw di dem ay mars ak yooyu loolu sori na alxuraan a ngi nii def leen lu nu mel kenn mënu ko kenn dafa mel ne sax yenn borom xam ci parce que ci ijaazul quran ñaari groupe la ci borom xam yi ñenn ñi dañ ne coobare yi def ko mi ngi fi ibnu taymiya ne bu ñu ko deful kon mënuñu ko. ndax jëf bu fi coobare newee ñàkk a def ne fi ñàkk a mën mooy nekk ci diggante bi loolu loolu la ko waxee ñeneen ñi ne coobare jala yàlla rocc ci ñoom ba coobare wuñu ko sax def mel na dañ ne leen daal ndax toogal jarul nga fiy nekk di sonn loolu yàlla moo ko def ci ñoom kenn du ko sax jéem xam nga bu nit jéemoon sax télé nga ne jéem na mais dañ ko dul sax jéem mel na ca tàmbale ba la yàlla roccee coobare bi jéemuñu ko far kon nga gis ne mbiru Muhammad alayhi salaatu salaam du lu ndaw. ñëwam ci àdduna changement bu bëri la indi communauté am li ñu apporté humanité bi kenn xamul nu mu toll bu ñu wax civilisation dëgg dëgg dëgg li civilisé àdduna bi l'islam la bunt boo ubbi ci wàllu dundinu doomu aadama ak nekkinu doomu aadama li ci doomu aadama yi amaat ci yëkkatiku lépp ñu ngi ko jëlee ci jullit ñi ñii ñuy tuddee tubaab yi nii ñuy wax nii nga xam ne tey ñoo fi nekk di wax ci civilisation wallahi laadim xam-xamu jullit ñi lañ sàcc biñ jaxasoog jullit ñi jël seen xam-xam yóbbu ko loolu lañ jël développé ko tax ñu àgg fi ñu àgg tey ba ci sax nouvelle technologie yi keroog maa ngi koy wax ay jeunes ne leen algorithme bi ngeen di dégg algorithme bi nga xam ne mën nañu wax ne mooy xolu informatique algorithme bi ñuy wax ñu ngi ko jëlee ci alxawaarismi alxawaarismi jullit la borom xam jullit la boo xamante ni bi moom moo defar loolu maanaam loolu moom moo ko sàkk moo ko créé ci moom lañ jëlee algorithme bi nga xamante ni moom la ñuy def ci informatique comme ordre booy jox machine bi pour mu koy exécuter ay algorithme moom moo koy exécuter da naan ko defal lii bu lii amee defal lii bu lii amee defal lii code mathématique boobu noonu ab jullit moom moo ko créé te loolu mën nga wax ne mooy xolu informatique mais jullit ñi sax xamuñu ne loolu ci ñoom la jóge boo xoolee ci médecine boo xoolee ci lu bëri ci wàllu lu ñu lu ñu lu ñu def waxuma sax ci wàllu yi nga xamante ne bi dañ koo def muy ay invention yoo xamante ni yu yu xëy na scientifique la wala technologique mais ci wàllu dundin doomu aadama ak nekkinu doomu aadama ba ci yoru nguur tëralinu nguur jiite am réew constitution ak yooyu tubaab yi seen constitution yi ci jullit ñi lañ ko jële ndax jullit ñi ñoo am alxuraan am sunna am ay atte yoo xamante ni ci lañ sukkandiku pour mën a am constitution pour mën a am lu ñu tuddee nu mu tuddee di sax pour mën a am lu ñu tuddee jurisprudence jurisprudence boobu noonu ñoom bi ñu demee ba soxla ko seeni réew jóge ci ceddo war a ñëw nag ci civilisation ak ci modernisme pour mën a atte atte yoo xamante ne yu nose la dañoo ñëw ci jullit ñi ci seen fiq ñu inspiré woo ko ci ñoom pour mën a tëral ay constitution nga gis ne kon l'islam moom moo beesalaat àdduna moom moo réformé àdduna moom moo jëlewaat àdduna ci maanaam lambi golo ku jug daan nekk comme loi de la jungle boo xamante ni ku mën sa morom lekk loolu moo fi nekkoon ci àdduna l'islam moom moo ñëw dalal l'islam moom mooy dëgg-dëgg civilisation ak jox nit ak xam ndax yonente bi alayhi salaam ci tàmbaleem la commencé woon di wax ne ku ñuul gënul ku weex ku weex gënul ku ñuul li ngeen di gënante mooy ragal yàlla tubaab yi ne fi jàpp nit ñu ñuul ñi jàpp aborigènes yi muy indien yeeg ñi dëkk ci dëkk yi kii di leen néewal doole di leen rey ak di leen def ay jàmm yonente bi alayhi salaam musul nangu loolu tubaab yi bien ñor yépp daanaka ci nit ñi lañ ko jële am na benn borom xam buy wax ne moom gëm na ni jullit ñi découvrir nañ Amérique bien avant Christophe Colomb Christophe Colomb li ko fa yóbbu mooy roi reenu Espagne bi nga xam ne dafa bëggoon christianiser àdduna bi moo ko jox mission pour mu dem foofu christianiser population aborigène yi fa nekk fekk boobu jullit ñi découvrir nañ ko avant parce que nee na gis na benn livre boo xam ne alimaamu Shaabi bi nga xamante ni ci taabiina yi la bokkoon doon na wax ne ginnaaw Andalus bi nga xam ne mooy Espagne am na benn dëkk bu fa nekk boo xamante ni ña fa nekk nii ak nii ak nii ak nii lañ mel seen distance ak Andalus mi ngi mel ne distance su Irak ak Andalus. kooku bi mu defee calcul bi def ne loolu mooy Amérique mu ne bu ko alimaamu Shaabi bi waxee li muy tekki mooy jullit ñi découvrir nañ lu yàgg Amérique ba xam nañu mel parce que dafa waxoon or bi ñu yoroon parce que Inca yi dëkkoon foofu or lañu yoroon or boobu espagnol yi ñoo ko nangu mooy li ñu tuddee l'Eldorado l'Eldorado boo ko déggee mooy seen dëkk dafa bëri woon or bi ko espagnol yi découvrir rey leen rey seen buur yi jël or bi yóbbu ko espagnol yi ñaawteef bi ñu def Amérique du Sud kenn xamul nu mu toll ginnaaw bi hollandais yi anglais yi ak français yi dem ci kaw bi ñu demee ci kaw tamit foofu ñu piyee ko sonal foofu ñu tuddee amérindien yi amérindien yi mooy indien yi native of America yi nga xamante ni ñoo fa dëkkoon polluer seen suuf yi exploité la fa nekkoon ci richesse sonal leen fitnaal àdduna bi yépp piyee lu lu baax ci àdduna bi ñëwee Afrique amul lu ñu fi xëy na mën a jëlee ci ay ressources ñu gis ne ñi ay borom kattan lañ borom doole lañ ñu yow ba mu ba mu dëgër jéng yóbbu dem jaayee ji ñaawteef bu mel noonu kan moo ko mës a def ci histoire doomu aadama kan moo mës a def ñaawteef bu mel noonu ci histoire doomu aadama moo tax kon l'islam moo libéré doomu aadama l'islam moo indi mandute ak tolloo ak yemoo ci kaw suuf yonente bi alayhi salatu wasallam bis bi nga xamante ni salmaanul farisi wala boog kannati la salmaanul farisi la moom moo waxoon wala abu dhar la damay jaawali seen tur moo waxoon bilaal ne ko yab na sawda yow doomu nit ku ñuul ki bi ko yonente bi alayhi salatu wasallam déggee daf na ko innaka imruun fika jahiliya yow ak caddo mi ngi ci yow ba léegi l'islam dese na laa yar ndax l'islam bu la yaroon doo xeeb nit ci couleur yaramam mais loolu ban jamono la ko yonent bi alayhi salaam doon wax Amérique kañ la jógee ci ségrégation raciale Amérique bi ñuy def tey symbole démocratie ci àdduna bi ay bus yoo xam nit ku ñuul ñemew cee dugg restaurant boo xam nit ku ñuul du fa dugg kañ la fa jóge te ba léegi problème racial mi ngi fa seen président Barack Obama temps yee ci ginnaaw rek reconnaître na ko nee na problème racial ba léegi mi ngi suñu réew nit ñu ñuul ñi policiers dañ leen di rey ci mbedd mi comme ay xar. kañ la yonent bi alayhi salaam def jàngale yu mel noonu ci doomu aadama yi enseignement bu mel noonu kañ la ko def ci doomu aadama yi jël adaan bi nga xam ne mooy nodd bi nga xam ne sax daf ne al muaddinuuna atwalu naasi anaqan yawmal qiyaama jox ko bilaal mu nekk noddu katam bi nga xam ne moo koy noddu di ñëw ci moom directement naan ko waxtu julli jot na mu jël cor boobu jox ko Bilaal te mu nit ku ñuul kukk arab yi daan leen jël di leen def ay jàmm lan moo tax mu am enseignement bu mel noonu ak ak auteur bu mel noonu ci yaram alayhi salaatu wasalaam keroog bi muy bi muy bi muy waaj a faatu toog na ci ci ci ci jàkka ji loolu la ñuy tëjee xëy na wax ne am na jaam boo xam ne yàlla tànnaloo woon na ko nguuru àdduna ak dem fa moom fa yàlla mu tàmm la nekk ca yàlla Aboubacar commencé jooy saxaaba yi di xoolante fekk ne Aboubacar xam na ne boppam lay wax boobu mi ngi leen di tàggu mu ne leen sama diggu ginnaaw moo ngi nii ku ma mës a dóor kaay nga fayu ku ma mës a jëlal benn dërëm ñëwal fii sama alal mi ngi nii nga jël ci balaa ñu dem bis boo xamante ni dërëm amu fa bu ñuy fayantee sama diggu ginnaaw mi ngi nii ban président moo ñeme wala leader bu ñuy coow ci àdduna bi ak démocratie mag lu mu mën a tudd dem ba jeexal mandaam ñëw taxaw ci kanam peuple am naan leen sama diw ginnaaw mi ngi nii kan moo ko salawatullahi wa salaamu alayhi wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin
jazakumullahu xayran cheikhna moom yal na yàlla subhanahu wa taala fay yiw te def waxtaan wi mu nekk njëriñ ci xeet bi yëpp mu def ko fii misaani xasanaatikum wa xasanaatikum xam naa dañu guddal ci wax ji ndax waxtaan wi leer na lool te amatul dara loo xam ne si ne war nañ ko ci commentaire dañuy def rek lu dul indi li nga xam ne si ni moom mooy laaj yi nga xam ne am na yu fi jotorot li nga xam ne waxtu wi maye na ko ñu daal di koy tontu bi isnillahi tabaraka wa taala di fàttali mbokk yi tamit ni pro- programme bi nga xam ne moom la jàkk ji daan amal mooy dogloo aji woor yi programme boobu mi ngi fi ba tey te mbokk ma la ci ginnaaw toog ci table bi looloo ko fi tax a toog di sàkk ci mbokk yi képp koo xam ne bëgg na am lu mu participer mu jokkoo ak mbokk boobu saa kii dafay am lu muy laaj mu ni ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wax ni yàlla subhanahu wa taala mi ngi ko bindee ci leeram loolu lu am la wala déet
bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wax ne yonente bi alayhi salaam yàlla ci leeram la ko bindee amul benn firnde bu wér boo xam ne ñëw na ci ñu koy wax mooy ñu bëgg a yàllaal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax dem nañ ba gis ne xëy na bëgg nañ koo màggal bëgg nañ koo wane ak mbëgg mbëggeel bu ñu am ci moom léegi bàyyi ko mu nekk doomu aadama pour ñoom loolu dafa tuuti ci ñoom pour ñoom seen bëgg yonente bi alayhi salaam bu koo màggal dafay yóbbu daf leen di yóbbu ci ñu jële ko ci dimension wu doomu aadama yóbbu ko ci mbiru yàlla ñuy wax ne yàlla bind ko comme ni mu bindee doomu aadama mais ci leeram la ko bind loolu wérul amul xadis bu wér wala aaya alquran bu wér bu ñëw di wax ne ci leeram la ko yàlla bindee yàlla subhanahu wa taala daf ko bind mu nekk doomu aadama comme ñun mu daal di wax ne wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum qul innama ana basharun mithlukum yuuxa ilayya innama ana basharun mithlukum loolu alquran moo ko wax mbindeef laa di doomu aadama comme yéen li ma wutaleeg yoon mooy yàlla def ma tànn def ma ab yonent kon loolu amul firnde bu wér buñ ci buñ ci ñëw.
jazakumullahu xayran kii dafay laaj mu ni ndax li ñu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem xeex yi mu xeex benn nit rek la ci mën a rey ci xeex yooyu la loolu wér la mooy allahu alam liñ ci xam naam ci lu moo xamante ne da koo wax dañ koo cité ci kenn ci kàngaami màkk yi waxoon ne da koy rey daal di takk ci keroog yow mu Badr yaa ko waxat la waxat waxat la du Badr jàppatuma turam ci seen kàngaam yi takk jóge fële defar ay armam ak léppam ne mi ngi dem rey ji ko parce que am na benn groupe bu nit bu ko encercler fële di ko protéger boobu néewal nañ jullit ñi doole ndax jullit ñi tamit jamono jooju li tax ñu néewal leen doole ci Uhud du sax defet Uhud du defet comme na ko ñenn ñi di waxee Uhud mën nga wax ne statu quo la kenn gañewul mais li tax jullit ñi am loolu mooy yàlla leen ci doon jox yar ndax bi yàlla waxee ne qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum la yàlla wax bi ñu leen daanee keroog Uhud ngeen ne lii naka la mën a amee xam leen ne loolu ci yéen la jóge mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ne laysa laka min amri shay'un aw yatuba alayhim aw yuadibahum fa innahum zalimun keroog bi ñu leen gañee Uhud wala boog bi ñu amee li ñu am Uhud ci jafe-jafe loolu yàlla jàngale bu bëri la ci bëggoon jàngal jullit ñi ndax li tax mooy kilifa gi dafa joxe ndigal ñu wutal ndigalam buñ ci jële woon ndam kon ndigalam dootul tekki dara dootuñ ko respecté parce que santaane na dara ñu def contraire bi terewul li ñu bëggoon ñu am ko loolu mënul woon nekk voilà bu ñu ko defoon rek anarchie lay indi moo tax il fallait que yàlla sanctionné leen taxaw leen fii ba leen fi jóge ñu gis nit ñi di jël ay ngañaay ñu wàcc bàyyi fa kenn bu ñu continuer woon ci loolu ba pare am ndam kon kon loolu dafay yàq autorité wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax il fallait que yàlla sanctionné leen pour bu ëllëgee ñu bañ ko defaat loolu moom moo leen dal dal li nga xamante ne bi moom mooy Uhud keroog am na ku takk ñëw ne day dem rey yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ñëwee wax ko ne ko diw ma nga ne di ñëw di riir ak fasam yore xeejam nee na ci yow la jëm si dalay rey mu ne man maa koy rey bal aqtuluhu bi mu jubee yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam si daal di sànni xeejam xeej bi dafa daal di ko daal di koy bënn jam ko ba ba ba ba fëll mu daal di daanu ci suuf bi mu daanoo ci suuf di yuuxu ñu laaj ko lan la mu ne li muy yëg ci ci douleur xamul douleur bi nu mu toll am na lu ci rax daal maanaam du douleur bu bu naturel noonu la deewee yonent bi alayhi salaam moom moo ko rey nga gis tamit fitam ak njàmbaaram bu ñu ne ko woon déw ngi fële di préparé mu daal di ne ut leen utal leen ma yoon wu ma jàll daw boobaa loolu day nekk koo xam ne non seulement day day day dafay désolé ñi mu àndal da leen di décevoir mais tamit day tax ay noonam dañ koy yeb mais bi ñu ne ko diwa ngi ñëw dafa ne man maa koy rey xaar leen ko ba mu ñëw fii man maa koy rey maanaam fit wu mel noonu laa moon alayhi salaatu wasalaam salawaatullahi wa salaamu alayhi
jazakumullahu xayran kii dafay laaj aaya bii di wax ni laa ikraaha fi diin ak aayatu jihaad nan la leen mën a comparé xam na fii Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daawul forcé aaya yooyu nan la leen mën a naam daawul forcé ndax jihaad ñaari jihaad la jihaadu talab ak jihaadu dafa jihaadu talab mooy jihaad bi nga xam ne daan yebal ay nit ci ay mission ñu dem di ko doxi bu ñu demee ba lislaam am gouver kiyam kiyam réewam am état am di gouverner ñi nekk ci suufu réew mi ñi nga xamante ne lislaam da leen di dugal ci suufu keppaaram ñu bokk ci réewam ndax tamit dafay nekk pouvoir boo xamante ne dañ koy yaatal léegi ñooñu yonente bi alayhi salaam li mu daan def mooy bu yebalee ay soldaaram ñi dem daf leen di jox ay choix daf ne bu ngeen demee na ngeen leen gaaral lislaam bu ñu nangoo dugg ci lislaam ngeen bàyyi leen bu ñu nangul dugg ci lislaam ngeen proposé leen ñu joxe jizya benn taxe la bu leen lislaam di teg boo xam ne bu ñu ko joxee lislaam da leen di protéger jox def leen ñu nekk ay citoyens yoo xamante ni ku dal seen kaw l'islam dal ci sa kaw kenn waru leen rey kenn waru laal seen alal wala seen rien du tout loolu taxe la boobu contribution la bu ñuy def parce que ñoom joxewuñu azaka defuñu lenn loo xamante ne dafay jàppale état bi fi nekk mais kon war nañ contribuer wu ci ay ci ay taxe loolu noonu la l'islam di proposer comme deuxième choix bu fekkente ne defuñu ko ñu soog a xeex ak ñoom noonu la l'islam doon xeexee kon ñëwul di wax nit ñi ne leen da ngeen di dugg ci l'islam par la force voilà loolu moom mooy li ci am laa ikraha fi diin ñaari tekkin la am comme ni ko imam ibnu kasir waxee laa ikraha fi diin mooy bu leen forcer kenn ci diine ndax koo xamante ni bi xol bi gëmul yàlla nga forcé ko ba jëmm ji gëm yàlla amul njëriñ beneen bi ci des laa ikraaha fi diin mooy mënoo leen forcé kenn ci ci lislaam ci diine bu leen forcé kenn ci diine ndax bu ngeen ko ci forcé amul njëriñ beneen tekkin bi mooy mënoo leen a forcé kenn ci diine laa ikraaha fi diin ndax diine mbiru xol la nit mënoo koo forcé gëm loo ko nam bëggut a gëm tay fadal jazakumullahu xayran kii dafay laaj ci aaya yooyu nga doon wax léegi ci diggante yonent yàlla Suleymaan wattaba'u maa tatlu shayaatiinu alaa mulki Suleymaan mu ni tax jinne dañ daan jàpp téere yooyu ak xam-xam boobu ban façon xam-xam.
xam-xam bu ñuul la boo xamante ni bi nekkoon Babel ci Irak ñu ñu ñu ñu jël ko te toxal ko yore ko ci xam-xam boobu la ndax ku nekk xam na ni foofu noonu xam-xam bu ñuul moo fa nekkoon boo xam ni dafay weddiloo nit yàlla mettre ko en contact ak shayatin yi ba mu am pouvoir mun di def ak di dindi ndax sixru dëgg-dëgg loolu la ak sixru mu njëkk mooy sarf mooy mën di def ci ci jamono ji di def ci ci dund nit ñi mbir muy am léegi xam-xam boobu noonu nga xamante ni ci jinne yi la jóge ñu ngi koy jëflante seen digganteeg doomu aadama yi lépp ci kaw ndax doomu aadama yi ba doyoo dal leen ci la tegu ndax jinne yi dañuy bëgg am cër ci doomu aadama yi mooy li yàlla waxoon rek istamtaa baaduna bi baadin istamtaa baaduna bi baad mooy ne jinne yi dañ am lu ñu soxla ci doomu aadama yi doomu aadama yi am lu ñu soxla ci jinne yi jinne yi dañ bëgg mooy tuutal doomu aadama yi wa annahu kaana rijaalun mina al-insi ya'uuduuna bi rijaalin mina al-jinni fa zaaduhum rahaqan rahaqan mooy yëkkatiku bi jinne yi di bëgg a yëkkati ci doomu aadama yi ndax doomu aadama xilaafatul ard moom la ko yàlla jox moom la élire ci kaw suuf jox ko fi nguur jinne amu ko léegi nag cër boobu jinne yi dañuy bëgg chaque fois di ko nangoo ci ñun ni ñu koy jéem a nangoo ci ñun mooy wan nañu ñoom ñoo ñëpp puissance mënal nañu loo xam ne mënal nañu ko suñu bopp loolu nag bu ñu ko bëggee ci ñun ci ñoom dañ leen di nangoo nekk ay jàmm waaw ñu dox suñu digganteeg suñu borom def ñu ay jàmm sixru daanaka mën nga wax ne ci loolu la tegu léegi xam-xam bu ñuul boobu nekkoon Babel ci Irak nga xamante ni ñu yoroon nañ ko di ko tasaare bind ko ci ay téere di ko jàng di ko jàngalante nee nañ mooy li yàlla subhanahu wa taala wax wa ma tatlu shayaatinu ala mulki suleyman wa ma kafara suleyman walakinna shayatina kafaru yuallimuna annasa sixra wa ma unzila ala almalakayni bi babila haaruta wa maaruta mooy sixru Babel léegi loolu nga xamante ne bi ñu ngi ko doon jàng ci seen jamono jooju noonu te Souleymane dem ba jot ci jël ko daal di koy denc loolu noonu la yahud yi doon tuumaal Suleymaan ne ndakate nguuram ci loolu la ko tabaxoon fekk ne Suleymaan tabaxul nguuram ci sixar ci njabar ndax dañ ne bu ñu ko tàggatalee jinne yi parce que dafa amoon xam-xam bu ñuul boobu bi nga xam ne moom ci la tàggateewul jinne yi mais Suleymaan xam-xamam nekkuloon loo xam ne xam-xamu sixar la woon mais lu ko yàlla defaloon la pouvoir bu ko yàlla joxoon la tàggatal ko tamit ngelaw ngelaw li da ko tàggataloon mu ci mu ciy daw ci ngelaw li ci ban anam yàlla moo ko xam mais ala kulli xaal da doon yëg ci ngelaw li ngelaw li yóbbu ko li yàlla waxoon ne xuduwuha shahr wa rawaaxuha shahr lu nit lu nit di di daw ci parcourir ci weer moom ci xëy la koy parcourir wala ci ci ci gont looy da looy parcourir ci weer moom ci xëy wala ci gont la koy par parcourir wallahu alam
jazakumullahu xeyran kii dafay laaj yan téere nga koy laaye biir ngir mu jàng lii di siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
ala kulli xaal liñ bind ci dund yonente bi alayhi salatu wasallam lu bëri la am na ci téere yoo xam ne téere yu mag la yoo xam ne neexul jàng am ci loo xam ne lu tënku la kutubu sira moom téere yu bëri la yi ñu ci bind bëri la loolu depuis ci jamono taabiina yi ba léegi ñu ngi ciy bind ay téere yoo xamante ne siratu rasul lañ koy tuddee yenn yi di wax ci yenn domaine yoo xam ne yu particulier la ci ci dund yonente bi alayhi salatu ndax léeg-léeg sira illa imam wax ci dund yonente bi alayhi salatu lépp wala mu xool benn rek ci dund yonent bi alayhi salaam lenn ñu taalif ko ci loolu wax ko ci day dépendre ci niveau wu nit ki rek bu bu xoolee niveau am daal fu mu toll ci kutubu siira yi mën na ci xool téere boo xam ne bu tollook moom la bu neex a liir la bokk na ci téere yu siiw yi nga xam ne neex a liir la arraxiqul maxtum bi safiyu rahman al mubarak fóore taalif te mu faatul jamono yi ci ginnaaw téere bu neex a jàng la téere bu neex a liir la te ki ko taalif tamit ci jamono jëla dund naam léegi bu dee laaj yi kii dafay laaj ne yonent bi alayhi salatu wasalaam naka la ñuy firndeelee bëgg guñ ko bëgg ndax ci di ko tàgg la wala ci di roy sunnaam mën nañ wax ne ci ñaar yëpp la ndax di ko tàgg bañ a xaabaabal ci tàgg bi lu baax la ci di wax ay qualité wax ay jikkoom ak ay melokaanam mais pas di xaabaabal ci di tàgg rek comme ni ko ñenn ñi foogee ne loolu mooy bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam di xaabaabal di tàgg di wax lu ne nga wax ko yaa tax ñu bind nit ñi yaa def lii yaa def laa yonent bi alayhi salatu wasalaam ci dundam bëggul woon loolu daf doon wax naan bu leen di ma yëkkati di ëppal ci man comme ni ko chrétiens yi defee ci Isa ibnu Maryam dem ba di ko yàllaal di ko doom di jàppee ko jàppee ko doomu yàlla bu leen def noonu ci man bi mu demee Màkka benn si ndaw ñëw na naan ko yow yaay diw yaay doomu suñu suñu suñu suñu sang yaay suñu sang mu ne ko qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum wala yastajriyannakum shaytaan na ngeen wax lu ngeen xam te ngeen bañ a moytu ko seytaane mu xëcc leen ba yóbbu leen ci lu ngeen lu ngeen war ta wax mu tere ko ko kon daawul nangu loolu ay tagg yu ñuy tagg moo tax mu naan wax naan ida raaytum maddaxiina faxfoo fi wujuhihim turab bu ngeen gisee nit ñi nga xam dañuy nekk di tagg nit ñi rek ak a tagg tibb leen suuf ngeen xëpp ko ci seen kanam yi ndax ay tagg bugg ko woon ay tagg bugg ko woon ñenn ñi nag dañuy sukkandiku ci kaaba lu mu defoon ba mu ko woyee banat sualu way boobu mu ko woyoon ba mu jël mantoom ba jox ko ñenn ñi ci loolu la ñuy sukkandiku mais kaaba ñëwul ngir way yonente bi alayhi salaam ak tagg ko dafa ñëwoon ngir sàkku ci moom njéggal ndax daf koo xasoon wax ci moom ay wax yu ñaaw ba yonente bi alayhi salaam dumalu ko kooku nag léegi bëgg mu jéggal ko balaa duma yi di agsi ci moom mu làqatu fexe ba àgg ci moom xam na ne bu àggee ci moom ba wax ak moom ñaan ko njëkk dina ko jéggal wax mu xam na ko li ñu naan buur aayul dag yaa ay léegi mu def stratégie fexe ba agsi ci moom rek daal di ñëw indil ko xasida bi way ko wax ko ne ko yow da nga nekk nit ku baax koo xamante ni loo diggee da nga koy def te da ngay jéggale da ngay baale léegi nag dama bëggoon nga baal ko looloo indi way yi mais way yi nekkul pour ñëw rek di ko way naan ko yaa fi gën yaa fi li yaa fi li mais dafa tooñ di ñaan jéggal kooku wan ko ne ko pour jéggal na ko yamul ci jéggal ko mu sumi manto bi mu soloon jël ko daal ko koy jox alayhi salaatu wasalaam léegi loolu de suñ sukkandiku ci ne kon aca buntu tagg sumee ubbeeku na léegi nañu nekk di tagg lu ne nga wax ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu ne nga waxal ko di tagg rek li am solo mooy wax ci ay qualité am wax ci jikkoom yu rafet nekkinam bu rafet ni mu daan jaamoo yàlla xamal ko nit ñi nit ñi roy ko ci loolu moo war a nekk jubluwaay mais jubluwaay bi nekkul tagg pour tagg jubluwaay bi warul nekk tagg rek pour tagg surtout tagg yoo xam ne léeg-léeg ak xaabaabal da cee am loolu nekkul jubluwaay waaye léegi kii dafa laaj benn laaj daa mel ne dafay xaw a sësal imaam yi ak ustaas yi mu ne yonente bi alayhi salaam ni mu disponible woon lan moo tax tey suñu imaam yi ak nitu xam-xam yi maanaam meluñu noonu daal ah moom mooy yonente bi kenn du moom comme li gars yi di wax parce que gars yi dinañ kenn du moom mooy kenn mënu koo roy loolu problème la wax ci moom wax a wax a wax ba ni kenn mënu koo roy léegi loolu la ñuy def voilà nit ku baax koo wax ñu wax a wax a wax ba ni kooku kenn mënu koo roy kenn du moom mooy ñun nañ des ci li ñu nekk rek moom kenn du moom bon du ma waxee ne kenn du moom ci ne mënuñu koo roy ci loolu fexeel nit ki day jéem a def kéemtalaay kàttanam pour roy yonente bi alayhi salaam ci jikko yu baax oyof gi nekkoon ci moom yërmande ji disponibilité bi bu la nit ñi yittewoo mën a jot ci yow te loolu gis naa ne tamit wax dëgg yàlla ñi fi nekk suñu jamono ji di ay imaam ak ay niti xam-xam ñi ngi ci seen kéemtalaay kattan mais dafa nekk ne tëraluñu jamono dafa gën a xat par rapport bu njëkkoon parce que nit ki day am ay yitteem ak njabootam ak yu bëri yu mu nekk yoo xam ni da koy jéem a booleeg di jàppale nit ñi ci xam-xam beeg jàngale bi ak jiite ci jàkka ji mais léeg-léeg tamit foog nga comprendre ko foog nga comprendre ko bañ ci xaabaabal trop ci nit ki bu amee jot nga bëgg a jël jotam lépp léeg-léeg ñenn ñi dañuy bëgg sax di ñëw sa kër di la fa fekk si te xamuñ ne boo fa nekkee aussi tamit njaboot gi dañoo am ci yow àq ndax inna li rabbika alayka xaqan wa li nafsika alay xaq alayka xaqan wa li ahlika alayka xaqan wa li dayfika alayka xaqan fa ati kulla di xaqin xaqa loolu moom moo ci nekk moo tax kon nañ leen jéem wutal ngànt te bañ a wax ne dañoo jafe wala dañoo nangam wallahi lazim ñu am xam naa ñoo xamante ni si ñoom daanaka talatuñ seen bopp ndax yittey doomu aadama yi ndax ñenn ñi naan la ki dafa tukki newu wala portable am mënoo koo jot boo demee yitte ba mu nekk ba mënoo koo jot ci portable am pour ngir njëriñu nit ñi la ngir daawa bi la boo demee ab réunion la boo xam ma ngi koy def ci jàkka ju ñu war a taxawal wala ci jumaa ju ñu war a tijji wala rajo bu ñu war a def loolu du mbiru boppam du mbiru boppam kon yàlla leen yàlla taxawu te barkeel la
waxtaan dañuy jël waxtaan bu mujj bi te question bu mujj bi
par rapport ak masala bi xew naa yi mooy nit ki woon ba pare tey di fóot jabaram quoi ah léegi am lu may ñëw ci kontaan am lu may ñëw ci jàpp man aussi am naa ñaar léegi mu ni moom ci lu wax quoi mu ko teelal dagan dafa jàpp loolu dagan na quoi léegi bu ko nit ki def ba am lu ñëw si ñun est-ce que su waa kooram day yàq ak est-ce que du yàqoo ba pare man la koy
xeyran incha allah léegi dafa laaj xam naa mbooloo mi dégguñu ko ne dafa am ku wax ci nit woor ba noppi di fóon soxnaam léegi bu dee loolu mën naa nekk tamit ci lislaam bu ko nit defee ba dara génn ci moom ndax day yàq kooram am déet masala bu bu yàgg la du masala bu bees ndax ci jamono yonente bi alayhi salaam laajoon nañ ko daan na ko may koo xamante ni ndaw la mu bañ ko def mu may ko mag pour mu def ko Abdullah ibn Abbas tamit loolu moo nekkoon lu mu daan ubbee daan fatwa bu ndaw ñëwee laaj ko mu ne ko bul fóon bu dee mag la mën a ko mën nga koo def loolu lañ tuddee muraatul furuq mooy ci fatwa dafa am lañ tuddee muraatul furuqul fardiya mooy léeg-léeg ci fatwa dafa laaj nga xam nit ñi seen i différence yi nekk ci seen diggante pour nga sàmmaale ko ci li nga leen di fatwa nit mën na laa ñëw nga fatwa ko li keneen ñëw nga fatwa ko ci même masala bi lu wuteeg moom parce que da ngaa sàmmoonteeg différence yi nekk ci ñoom léegi loolu la Ibn Abbas daan def léegi bu ko defee ci cosaan nit donte madahib yi si lu mel ne madhab Malik yenn madahib yi dañ ci xaw a dëgëral ci nit ki bu mu wuree bu bu woree bu mu jege soxnaam mais ki dara terewul mu mën a fon soxnaam wala mu foo ak moom mais mu moytandiku àgg ci foo xamante ni bànneex day génn ci moom ndax xadisul qudsi ba li mu waxoon mooy yadaau ahaduhum taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli wa shahwatahu shahwa mooy bànneex moo ne kon nit bu wooree day bàyyi bànneex mooy li yàlla subhana taala waxoon ne uxilla lakum leylata siyaami rafathu ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba alaykum fal aana baashiruhum wabtaxu ma kataba allahu lakum wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fi lmasajid loolu bu waxee ne arrafathu ila nisaikum mu ne laylat alsiyaam waxul aljimaa mais arrafat la wax baatu rafat li muy tekki mooy fo nit ki fo ak soxnaam même bu sequl ak moom àggul ci sëy ak moom mais fo bi arrafat mu ne daga naa nañ leen ko ci guddi koor léegi ginnaaw bi bi mu waxee ci mën ngeen ko def ci guddi koor gi da cee tegaat ne wakulu washrabu daal ne xataa yatabayana lakum alxeytu al abyadu min alxeytu al aswad min alfajr summa atimu siyaama léegi foofu xataa boobu noonu raaya la boo xamante ni maanaam terme la boo xam ne dafa lëkkaloo ak lekk beeg naan bi waaye tamit ak fo bi mu waxoon ne dagan na ci guddi gi mooy kon bu demee ba fajar jot fo bi ak seen soxna yi ak lekk beeg naan bi arrêté leen ko ba timis jot kon li muy tekki mooy nit ki bu mu ko baril wala mu koy def def bu ko mën a puus ci mu def loo xamante ni lu mu warta def la ndax li mu waxoon mooy man ittaqa shubuhat istabraa li irdihi wa diinihi wa man waqaa fi shubuhat waqaa fi lxaraam ka raaci xawla alxima yuusiku an yaqaa wala yuusiku an yartaca fiihi mooy bu la yàlla xaraamalee mbir da nga koy moytu boo ko jegee rek soo moytu tàbbi ca moo tax fobi wala foon nii rek mën na nekk mais fobi bu bëree ba dara mën caa toppee imma nit ki dara gis ndox mu génn ci moom te loolu dañ ko ko tere woon day yàqu kooram bu fekkee ci sababam moom la ko defee ba mu ba ba mu génn dafay yàqu kooram mu des ndax dafay am kafaara am na xilaaf bu ci am lu mel ne nit ki foo kanamam ba ndox génn ca ñaari wax moo ci am ñenn ñi dañ ne day kafaara comme ki ñëwoon ci xadis Abu Hurayra waxoon ne dafa joteeg soxnaam te yonent bi alayhi salaam waxoon ko ne na goreel jàmm wala mu woor ñaari weer wala mu leel fanweeri miskin ñenn ñi wax ne bu fekkee nit def na ko ci bu mudul sax ci soxnaam moom mu dem sabab lu def ko wala mu foo ba loolu am kafaara boobu day war ci moom ndax résultat bi benn la te l'islam du tàqale ñaari mbir yoo xam ne même résultat la même bu dee sax moyens yi ñu jëfandikoo bokkul mais même résultat la boobaa l'islam du leen tàqale ñeneen ne déedéet jote ak soxnaam dafa am xotti bu ci nekk xotti war may bëccëgu weeru koor boo xam ne moo gën a tar loolu moo tax mu yelloo kafaara mais bu dee da koo def ci beneen anam ci sàggante ba loolu dal ko nañ ko wax ne ko na fay bis bi te bañ a kafaara ñoom ñu ne kon kafaara bi dafay yem rek ci bu fekkee sëy la mais bu dee du sëy nag moom moo tax ndox moom génn ci moom boobaa du kafaara dafay fay rek wal ilmu inda allah متكبر ارحم ضعفي